าม ci jàng نولاه ku wooteel alquran day mel ne Serigne Touba moo woote léppam téereb yàlla bi la léppam alquran la waaye buñ ko wootee nag ci turu waa kër Serigne fal dafa rawati ndax moom ku ne xamoon na ab cëram ci alquran diggam ak Serigne Touba. lim ko ci defal lim ko ci taxawul lim ko ci liggéeyal ci samp ay daara samp ay kàngam yoo xam ne ñuy taxawu daara yi di leen toppatoo di leen nemmeeku di leen yittewoo yamu ca waaye di bindal boppam ay kaamil jox sëriñ bi àddiya lim ko defal xamuñ ci histoire ku ko defal sëriñ kon bu ñu wootee alxuraan ci keppaaram wooteel ko sëriñ Tuuba loola du kimtaan lu war a nekk la ñoo ngi ndekkeel ndokkeel bu baax njiitul daara ji soxna Mbène Mbacke bintu Cheikh Abdul Karim Karim al Akhlaq yitte ju kawe ji mu am ci liggéeyal téere bi tedd bii di ko defal maamam Serigne Touba di ko woote itam nag ci weer wu tedd wii di weeru safar ngir teeraa ko bis bu mag bi nga xam ne amuñ lu dul moom waaye yéen ñu wuy si woote bu tedd bi it ngeen xam ne Serigne Touba moo leen woo Serigne Touba ngeen wuy si bu ñu weesoo loolu danañ sandu ñi nga xam ne ñoom ñoo waral ñu woote bis bi daara day jàngale daara ju ñu askanele alquran nag résultat ya mooy gone ya jàng xam lañuy jàng ba noppi yaru la xam ci am njàng nag dañ koy feeñale lu ci ëpp ci koo xam ne mokkal na alquraanul karim téere bu màgg bu rëy boobu commencé tari alhamdulilahi rabbil alamin jaar baqara ali imran ba àgg na jënati wan nas ñi ko mokkal ñoom ñoo sabab ñu woote bis bii ngir teral leen ci ndax Serigne Touba ñooñu rek la la amoon bu ma saana woo kenn ci ak njabootam bu waxee sama njaboot dañu xam ne waa daara ja la ci jublu rawatina xale bi wattu téereb yàlla bi kon ñoom dañ leen teeru te tagal leen su ko defee ñoom it ñu barkeelu wan ñu tuuti ci liñ njàng ci daare ji su noppee it gone yi dinañu fàttali lenn ci waxtaan yi nga xam ne sëriñ daan na ko def daan ci ànd ak mag ñi di waxtaan ak ñoom dinañ jox ay tomb ngir am njàng ñaar la xale moom na toog di jàng di mokkal waaye mag dana toll foo xam ne ay soxlaam ak li koy occupé ci dund àdduna ak njabootam doo dootu ko tal sëriñ bi méthode bi mu leen daan jàngalee bokk na ci daan tomb di wax ñuy dégg di jëf ñuy gis loolu moo gën a gaaw ci ci jàpp ndax ñoom weesu nañ ngay tëral ñu xam li ngay tëral ba pare di ko jëfe jëfe rek lañ toll ñooy da ngay def ñuy gis nga wax ñu dégg gaaw jëfe waaye doo lañ sonal ci ay baat ñu koy firi doog a xam maanaam loolu bokk na ci méthode yi sëriñ bi daan jëfandikoo ci am njàngale xale yi danañu ci wan lu ndaw luñ barkeeloo insha allah bu loolu weesoo it daana ji ci ab yaram day tàggat gone yi ci seen diine di leen ko xamal yemuñu rek ci jàng alquraanu karim waaye bu ñu xamut sax baati arab yi li ñuy firi néewaana koo ci laaj farte njàpp te du la ko wax ndax dañ ko ko jàngal ci façon bu leer koo ci laaj lu war ci ak laab wala ndox mu mën a laabal te du la ko wax koo ci laaj lu aju ci julli ak ay attam te du la ko wax te loola baraana mag ñoo xam ne nii mag ñoo ma yem mbaa sax ñu tane ma waaye am na ñoo xam ne boo laaj ñu ñu jàpp wala ban ndox moo mën a laab te mën moo laab te mën a laabal bala ñu la ko wax dinañ sëgg a sikki xale yii nag mucc nañ ci loolu te tolluguñu fenn loolu ak cant la danañ ñu wan ñoom ci xeet yooyu ñu jàng ci seen diine as lëf loo xam ne dinañ ko barkeeloo incha allah weesoo loolu kenn ci way jur yi dana jël kaddu ci seen tur su ko defee ñu jox sëriñ bi kaddu gu mujj gi mu ñaanal mbooloo mi ñu yeeweeku insha allah danañ def suñu kem kattan ba tënk programme bi ba tisbaar danañ yeeweeku wala bu dee mut noonu it ñu xam ne noonu la ko saa dogale suñu ajay amin amin lool te wéral ko lool ba naali yu tedd yi nga xam ne naalal na ko Cheikhuna Ahmadul Xadim te lu mel nii jiitu ci suñu naal lii ñu nekk jiitu ci naal yooyu mu ko mu naalal mu àggale yëpp te ànd koog njabootu Sëñ Tuubaa gépp nag waaye it di nuyu ak a ziyaare bu baax a màggal suñu sang ba Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne mooy kilifa pénc mi ñu toog waaye di jaare siyaara bi ci si suñu sang Cheikh Abdoul Karim moom mi nga xam ne ak fonkam alxuraan yaakaar naa du neex leeral moom lu ñuy gis la di ko teg bët ak di ko làmb di ko daj damay dégg mu wax ci làmmiñam ne mel na ne lépp lu ma am alquran ak ko defal ngir baat ba nga xam ne moom la ko kilifa gu tedd waxoon ginnaaw ba nga ba mu ko bindalee kaamiram bu rafet boobee ba kilifa googee ne woon karim yaa def nii alxuraan na la wér kéng ne karim dana la defaral daa mel ne baat boobee du ko fàtte te koy fàttaliku saa yu nekk moo tax jotaay yi ñu jot a fekkeegun yëpp te muy jotaay yi alxuraan mu cay doxee doxin boo xam ne nii du bokk ak wenn doxin ci miinagum ci jamono kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu mag guddal aw fanam lool te yokk ak wéram ci barkeb Sëriñ jubaa di ñaanal waa daara ji yépp ci jiital soxna mbenn moom mi nga xam ne jigéen ju man góor la wax dëgg jàmbar dëgg la jàmbar dëgg la bu ñu waxee jàmbar dëgg la nag dafa doya yam ndax fii àdduna toll fi jamono toll yiy xëcce bari lool yiy xoy xoy yi ci wet yépp bari lool te yëpp mën a jàppandi ca moom mu mën a am yëpp ak man koo jaaree fu ko neexit nag waaye mu jaay lépp jënde ko liggéeyal maamam ju tedd ja ci tool bii kon ku jàmbaar la am jàmbaar ne ko jàmbaar nga doy na sëkk doy na sëkk aw tagg kon soxna benn yàlla na yàlla sàmm yàgg sa kem yi nga xam ne yéen a bokk liggéey ci tool bii yàlla leen suñu boom defal tawfeex kon ñu ngi nuyu mbooleem ñi nekk ci baas bi ñëpp di ci jiital suñu suñu sang bu tedd bee suñu bàjjan bee nga xam ne suñu wéttalu xol la ci toolu alxuraan bii nga xam ne ñun ñëpp dañoo juddu xàmmee mu fi suñu wéttal ci alxuraanul kërim di ci def liggéey boo xam ne ni kenn mënu koo rat kenn mënu ko xayma muy soxna Mariama Kunta mii nga xam ne moo toog jàkkaarloo ñun te doon mbégte ci ñun lool bokk ak moom jotaay bi Mbàkke ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax dina ñaanal sama boroom yàggal la fi lool ci barkeb Sëriñ Tuubaa barkeb Cheikh Mamadou Fadal moom nga xam ne mel na ni moom rek nga tegoon nga teg sa gët ci sa liggéey bi nga nekk ngi lay ñaanal bu baax suñu borom kattanal la di dalal mbooloo mi yëpp di leen ñaanal suñu borom defal ñu tawféex ak kendalu jàmm di ñaan yàlla lu ñuy jotaay bi incha allahu taala ngir gaaral liggéey bi am ci daara ji waaye firiwut ne dañoo ñëw ci jotaay bi ngir gaaral seen alquran ndax seen alquran moom bu yàgg la nekk ci biir daara ji di ko jàng suba di di di di di di di fokk seeni guddi waaye di léeg-léeg di fande léeg di diiñe ba sama borom subhaanahu wa taala may leen alquranul karim ca ngëneelam biñ demee ba noppi ci ñu yët leen aw nit ñoo xam ne nii ñu xereñe alquran la ñu saytu leen ñu tari ko ca ñoom ba mokkal ko kon buñ liggéey ci barab bi dañ leen di sargal dara sax lu leen di sonal wuruñ leen ko waroon def loo dara ay leen jàng loo ko def yëf loolu sax wutoon am far dañoo waroon a ñëw rek ñu sargal leen wayal leen tatagal leen tuur leen ay parfum jox leen i xéewal ñu dem waaye nag daa bokk ci xéewal yi nga xam ne ñu nit danañ ko barkeeloo mooy kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci ñoom jël benn aaya mbaa ñaari aaya dat koy raxase suñu nopp yii waaye raxase ko suñu xol yi waaye leerale ko suñu xel yi barke borom tuuba lii bokk na ci tomb bi borom tuuba yim daan tomb te sëriñ Tuuba xaadalawullaahu maxtaaralawu nee na am doom man koo taawu ba mokkal alquraan defoo ko ko defoo ko kaw suuf si amul lu ko fi jar daa di dóor loxoom bu tedd ba ci suuf sëriñ Tuuba xaadalawullaahu maxtaaralawu nee ni ma gënee ñu mokkal alquran lañu mokkal alquran gënee ku dul man assalaamu aleykum ana Fatima maa ku bëgg a julli nan lay def ku bëgg julli war naa dem jàpp baa kon bu ndox amut mu dem tiim mu jullee noonu baa mu tiim te am na ndox jaamam bañu ko kon ak du baax day sonal boppam rekk jàpp nag bokk na ci ay faataam raxas sa kanam bam daj li ko tàmbali ci kaw bopp bi ba ci sikkin bi mooy guddaay bi li ko tàmbalee ci nopp ndeyjoor bi ba ak ci nopp bi mooy yaatuwaay bi jàpp nag sopp nañu ndoxum bañ a bari doon yam tey na jullu penk ba a wax lu wut tudd yàlla te fi nay jàppee laab julli nag ku wax ne wut doona su jullit bu xamee ne war na ba noppi bàyyi ko kon saay-saay la bona bon wasalaam sama maam maaw mbay damay laaj nii la ñuy wa salaam الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للطائفة المريدية di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ak njabootug Sëriñ Tuubaa gépp ñu ngi ñaanalit sëriñ abol baraka ibnu cheikh mohamadinil fadil mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ fàllu ci kaw suuf yàlla yàggal ko fi lool tam ànd bu wér bi waaw kon mbooloo mi sëriñ bi ne na ngeen day tax day taxaw fii ñaanal ñëpp rek dellu ci biir di ko sant di julli ci tam bi di sant ci sëriñ Tuubaa mi nga xam ni lu ñu am ci moom lañ ko amee ci moom la ko jaarale neena na di nuyu mbooloo mépp nee na di mottali rekk ndax sëñ Fallou Diattara mii doon wax li muy wax noo bokk lu ñuy wax nee na li mu wax yépp sax du ci jaaraat nee na mi ngi nuyu mbooleem ñi mu nuyu woon ñépp rek nee na di fedd li mu wax ci sant gi sëñ Abdou Karim Mbacké sant ci sant soxna Mbène bu baax a baax ndax lii muy def moom la war a def ndax lii mooy farata ji ndax sëñ Tuubaa bi muy sanc dëkk bii daa bàyyi woon ak ñëpp fañ am ñëw fii wut si fii ngi def ko dalukaay jaamukaay yàlla di fi yar nit ñi kon ku bokk ci sëriñ Touba boo defee loolu wàcc nga def nga li nga war a def waaye du tee ku def li nga war a def it ñu sant la kon soxna Mbène Serigne bi mi ngi lay sant bu baax a baax di ñaan yàlla na yàlla nangu jëf yépp ca fañ fay gën ji fay mu ni jigéen it nag boo koy sant nag. ah mun la ñàkk nga boole ca ka ko yàlla booleel muy alaaji Pape Momar Ngom mii nga xam ne nii moom la ko yàlla booleel waaw wolof day wax ni feccum liir bu neexee day jaa jàpp ca wagg ya li muy baaxa tegu ci yoon lépp su ko sox su ko sëriñam tere woon da ko war a bàyyi waaye ginna am nag mi ngi ko ci bàyyi ba pare di ko jàppale bu baax a baax ah Pape Momar sëriñ bi nee na ñu ngi lay santit bu baax a baax waaye it di sant soxna si it nag ci sagal gim ñu sagal ak suturaal gim ñu suturaal ndax képp ku bokk ci sëriñ Fallu ah ñu ni ah sëtub sëriñ Fallu de moo moo moo la jàngal alxuraan ba nga tari alxuraan ah nee na loolu sagub waa kër sëriñ Fallu gépp la nee na loolu it tontu la ci sëriñ bi itam ndax sëñ Abdou Karim mbooloo la ko wër ñu tudde leen makaarimal axlaaq nee na makaarimal axlaaq nag lii fondement bi nag mooy alquran kon bu ak njabootam dee jàngale alquran bañ di ko tari ah loolu moom tontul sëñ bee ndax loolu mel na ni mbooloo mi ngi. mi mu jiite mi ngi leen di toog ci yoon loolu lay wone ndax am na ci ñoo xam ni seeni waaju wallaay sori woon nañu njàngum alxuraan lool soxna mbeen dimbali leen jël seeni njaboot jàng leen ba ñu mokkal alxuraan te bii mooy juróom-ñaareelu yoon ci édition ñuy def tari alxuraan ndax ca Ndakaar lañ ko tàmbalee kon nag sëñ Abdou Karim ñu ngi koy sant bu baax bii nag mooy septième édition huitième bi yàlla nañu fekk ñun ñëpp te lépp yokk ñi mokkal gën a bari ñun ñëpp ñu bokk fi teew kenn bañ a màkk yàlla def mu yokk zaahir ak baatin te defal nu ko ci daraje sëriñ bi was nee na sëriñ bi nee na ah mi ngi jégg lépp lu ci manqué nee ñu xam ne daa mun la wax ndax daa xaw a tële wax waaye nee na bëggoon na mu gën a jot waaye nag daal mi ngi sant rek nee daal mi ngi yemale foofu kàddoom incha allah ñu ñaan ñu teewe ko ne ni déwén ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen kon fu waay nekk ñu ànd maase tàllal ah sëñ bi ah ñaan nag waaw kon amin amin amin raayoo leen